ñu ngi ci téere bi di al bi jàngale irab lan mooy irab xam nga naaw irab moo ko tax a jóg léegi dafa am baat yoo xam ne seeni maanaam mën naa soppeeku naaw di changé masque yi ca mujj maanaam bu nekk dafa am masque buñ ko jox bu koy confirmer hmm. dëgg dëgg maanaam bi moo lay waral baat bi naka nga koy firi hmm. yi mokoy koy تي الولد ولو الراكب ليلى الراكب من عليك فاعل نجي قال واحنا ولا جاء ديك الراكب نحو نك قول مبولك اسم بو خمي فاعل ليدون تمنى نيك لنن ñu jox ko rafaa soo xoolee maanaa bi gis ne moom moo def nga xool gis mu mu maas rek mm-hmm. daf lay confirmer ne lii faayil la <coughs> mal naa nekk mubtada waaye xam nga bu waa nekkul ki def mm-hmm. mais moom moo commencé wax ji daanewu ko ñu jox ko rafaa tamit parce que ba léegi du lënt mm-hmm. ndax maanaa yi bokkul araakibu aji war ji zaahibun aji dem la mën naa nekk xabar moom it ñu jox ko parce que maanaa yi du lënt léegi xaaral kii raakibun aji war mën naa nekk ma foonu bii ñu jox ko nasab raaytu gis war ci mën naa xaal ñu nasab ko ba tey parce que maanaay du lënt jaa dikk na raakiban du muy aji war gis baat bi maanaa yu bëri yim am moo tax maskaam yi soppeeku kon irab mooy changé maskaay mujj baat yi ngir maanaa yu wuutee yi wala nga ngir jëfin yu wutee yi ca dugg mooy maanaa yu wutee rek kii dañ ko def faayil kii ñu def ko mafoonum bii bii xarfu jar dugg ci bii nekk xaal bi nekk nangam loolu moo changé masque yi kon loolu mooy érab mooy changé masque mujju baat amaa li ñuy binaal comme xaraf moom benn masque la yore benn maanaa la yore bu maanaa bi changé dara neex a xam moom jumla boo ko fekk da nga xam ne maanaa bii la fa moo tax soxlawul masque yu bëri lu ñuy binaal nga xam ne benn maanaam la yore am du soppeeku ndax moom maanaam dafa fës yow mën naa xam <coughs> loolu mooy i'raab al i'raab i'raab moom moom taxyiiru awaaxiril kalimi mooy changé mujj baat Eraab mooy changé mujj baati nam muñ ci mujj baati la mujj baati changé ko waaye masque mujj baati yi koy changé loolu lañ ci tam amma baat bi ci mujj ko kenn changé ko al eraab eraab boobu moom taxiiru awaaxiri kalimi mooy changé masque ay mujj baati lixtilaafin awaamir yi ngir wuteeg jëfin yi ak daaxilat yi dugg alayha ci moom jëfin yi dugg moo wutee moo tax masque yi di changé tey alwaladu jaa alwaladu kooku fenloo ci dugg def ko faayil raayitu alwalad da jëf ji ci dugg mooy mafoonam bii lañ ko def da jëf ji dafa daanu ci kawam kee moom moo jëf-jëf ji maanaam tubbil wala di kooku xarfu jara ci dugg alwaladu karimun kooku dafa tàmbali wax moo tax mu rafa dégg nga xaada waladun كوكو دا فا موتالي واخ موتا مو دافا مانام نيك جي مي نيك فايل مفعول بي مبتدا خبر نانغام حال يوي موي جيفندي موي جيفندي ووتاي كون ايراب موي سازي ماسك موجوباتي دا جيفندي ووتاي يدوغو سي بانت الإعراب إعراب هو مم تغيير أواخر الكلمة وإسناد مجيباته لاختلاف العوامل ngir wuteeg jëfin yi ak daaxil ci dugg alayha ci mujibaat yi jëfin yooyu nag mën naa nekk lafzan luñ mën a tudd maanaam masque bila laay wax mën naa nekk changement gi mën naa nekk lafzan luñ mën a tudd comme nga ne jaa dikk na arrajulu góor gi saa yu gis naa arrajul ak góor gi maratu romb naa bir rajul yi ci góor gi xam nga ne ah say dégg nga kon lafzan gis nga rajulu jaa rajulu raaytu ar rajula maratu bi rajuli masque bi dafa changé nga mën koo tudd léeg-léegi masque bi nag changé mais taqdir lañ koy nattee mooy yi nga xam ne seen mujj dafa ràgg jaa Moussa raaytu maratu bi Moussa Moussa masque bi changé na ndax jëfin yi bokkul maanaam position bi mu nekkee bokkul fii fan yi la fi ma foonum bi fii majuru la fi mais nag changement gi dañ koy nattale du feeñ kon changement wu irab léeg-léeg mu nekk labzan luñ mën a tudd mm. aw taqdira wala lu ñuy nattale mm. mooy yi nga xam ne rafaa na du feeñ te mm. naan mëng fa waaye feeñut nasab na may nasab gi du feeñ do ko gis jaar na may jaar gi du feeñ ndax lan dafa am ngant yu koy tey feeñ mm. lolu moom mooy affaire kon loolu mooy erreur érab mm. mooy changé masque mu jubaat mm. ki jaa dikk na arrajulu raytu gis naa arrajula maratu romb naa bir rajuli mu jubaat bi dafa sans ndax lan ndax position baat bi bokkul dégg nga rafi aji jëf rafa moo ko rafa fi'l bi daf ko faay fi amilu nasb aji jëf nasab moo ko nasab daf ko mafoon bi fi amilu jari la war a jar moo ko jar mooy xarfu jar fi'l léeg-léeg mu jëf ci baat rafa ko parce que faayil la ko def léeg-léegi fi'l bi jëf ci baat nasab ko parce que mafoon bi la ko def aji jëf ji mën naa nekk lenn waaye li jëf ji daanu ci kawam moom duñ bokk masque parce que ba mu jëfee si si yow faayil def fee mu jëf fa def ko ma xoolum hmm. bii moo tax masque yi du bokk hmm. aji jëf ji rek mooy fexlu bi aji jar jar hmm. kon érab mooy changé masque mu jubaati ndax jëfin yu wutee ci dugg changement googu nag mën naa nekk lu ñu mën a wala lu ñuy nattale dégg bu dee raaytu al fata ma su bin fata parce que denga nga kooku maqsuur la maqsur wax lañ ne euh, isim la bañu arab muñ ci delif ay waaye la lu ci fop ma xam rafaa gi wala nasab gi wala jarki bu de man kuus la ja al qadi raaytu al bil bu man kus la bu jàppal ne <coughs> yaaga bu ya, mm-hmm. euh, rafa ga du feñ mm-hmm. jar ga du feeñ waaye nasab ga day feeñ rayatool qadiya mm-hmm. isim neng mom, ben murage alif wala ya rek lele léeg mu bañ a parce que du ci jokk haza kitabi, raaytu kitabi kitabi, nga yeb marasu wala bi kitaab bi wadaatu ala kitaab bi yooyu yëpp masque du feeñ parce que yaaw mutakallim di ci jokk kon léeg-léeg isim bañ a feeñ parce que yaaw mutakallim moo ci jokk léeg-léeg it mu bañ a feeñ comme ni ñu éraaboon bisimilah yi googu xam nga ismu mubtada lañ ko éraabee bu dee baa ngi xarfu ndoola la waaye dafa soxloo masque ab xarfu jarga kon léeg-léeg istixaal tax mu bañ a feeñ yooyu yëpp mën naa tax baat bi bañ a feeñ waaye waaye isim moom dara gee lu muy alif wala yaa mais du raggee waaw fexlu mm. alif wala waaw wala bu mm. raggee alif gi ak nasab gi du feeñ mm-hmm. axsha lan axsha mm. nasab gi dañ koo nattale rafaa gi dañ koo nattale waaye boo ko jësemee da ngay ragg alif gi lam yaxsha fexlu mm-hmm. bu raggee yaa wala waaw nasab gi moom day feeñ waaye rafaa gi ak rafaa gi du feeñ jësam gi tamit da ngay xasaf mujj ka du jar moom fexlu man ga wax ne lan ajiriya wala lan aduwa gis nga nasab ga feeñ na waaye ana ajiri ngay wax adu dañ ko rafa man nga rafa mooy daamu gudd na tale ci mulki na safa ràgg waaye lam ajiri ak lam adu boo ko jësumee moo xam alif la ràggee moom feel wala waaw wala yaa boo ko jësumee da nga dagg mujj mais boo ko rafaayee nag wala nga nasab ko bu alif dañ koy nattale bu waaw wala yaa boo ko nasabee nasab ga dafay feeñ boo ko rafaayee nag nga nattale ko loolu mooy taqdiran gi ñu wax la su ko defee mu ne <coughs> waqtaamu xaaji irab arbaatu ñeent la irab ñeenti façon la maanaam anwaawul irab ak aqsaamu irab benn la anwaawu irab ak alaamaatul du benn irab moom baat bu ñuy érab mooy baat boo xam ne moom mujj gi dafay soppeeku masque yi day soppeeku kooku doo wax dañ koo kasara wala dañ koo fata wala dañ koo dam wala dañ koo nangam déedéet dañ naan marfoon dañ koo rafa wala mansuubun dañ ko nasab wala majruurun dañ koo jar wala majzuumun dañ ko jësam tax xaaji érab yi ñeent la rafa ak jar benn la ak jësam hmm. buñ ko rafaayee léeg-léegi am masque bu wane rafaa nga bu dee li wane rafaa nga masque la dàmm lay doon buñ ko nasabee léeg am luy waree nasab ga la seen cosaan fataa la buñ ko xafadee léeg am luy waree xafal ga la seen cosaan kasara la buñ ko jësamee léeg am luy waree jësam ga la seen cosaan sukkoon la am na yeneen yuy waree rafaa ak nasab ak kafar ak jësam yu bokkut ak dammu fataa kasara sukkoon yooyu danañ ko jàng hmm. kon waaqsaamoo xaajee rab arbaat ñeent la mooy رفع رفع ونسب نسب وخفض أخفض وجزم الجزم fali asmaa yi ñeel na tur yi min zaalika ci loolu tur moo moom ak rafu rafa wa nasb ak nasab tur dana rafa dana nasab wal xafd ak xafat ñett yi la turam wala jësma di rek jësam fiyaa di ci rek walil afaal yi ñeel na fiyaal yi min zaalika ci loolu ak rafu rafa wa nasb ak nasab wala jësmu ak gisam wala xaf da dee xafat fiyaa di ci nekk kon baat bu ñuy binaal moom moom damm fata kasra sukkoon moo tax bu ñu ko mabni ala damm dañ ko binaal ci tam mabni ala kasri mabni ala sukkoon mabni ala fatati parce que yi binaal ñoo ko moom amaa yi érab moom danaan marfuun mansuubun majruurun waaye boo ko rafaayee xam nga rafa léeg-léegi dàmm wane ko léeg-léegi lu dul wane ko moo tax boo rafaayee boo ne dafa rafa da nga ñuy leer la lan moo wane ne dafa rafa lii erab moo soxla mandarga fii moom dañuy wax moom ñu lañ ko bina xala kasri ci kasra wala matu kasri yi ma kasra gi mooy nangam déedéet bañ dem moom ñu xala kasra rek soxla mandarga bi wane ne mas dañ ko rafa wala dañ ko nasa wala dañ ko jar wala ko mandarga yooyu nag ñoo xeeti binaari benn la kon xeeti binaari ñeent dam fata kasra sukkoon mandarga era bi tamit ñeent la fata dam kasra sukkoon yi ñëw cosaan yi mais am na yeneen amaa yi mandarga er-, er-, xeeti era bi moom wala xaaji era bi kook moom rafaa ngay wax nasab xafat jisam xaaji era bi wala xeeti era ak mandarga era duñ benn mandarga era mooy liy war ne dañ koo era ci rafaa wala ci nasab wala xabar wala jisim yooyu ñeent la ñeent ñoo ci cosaan laa wax mooy damm fata kasra sukkur am na yeneen mandarga yu koy wane yu yooyu kon mandarga i'raab bi ak xeeti binaal yi benn la xeeti binaal yi fata kasra damm sukkur mandarga i'raab fata kasra damm sukkur mooy cosaan waaye xeeti i'raab bi moom kooku rafaa la ñuy wax xafat jësam yaakaar naa xam nga li ma wax léegi nag mu ne rafa ak nasab ñoom danañ dugg ci ism ak ci fi'l yëpp xam nga ñoom ñeent lañ rafa nasab xafat jësam ñu seddoo ko seddoo ñoo bokkaate rafa nasab jaa zaydun raaytu zaydan yaktubu zaydun lan yaktuba zaydun dégg nga yaktubu nasab na rafaana zaydun nasab na rafaana kon ndafa ak nasab dana dugg ci ismu ak ci feelu xafat ismu rek ko jegoo jësam feelu rek ko jegoo kon seddoo bu maandu la dañoo bokkaate rafaa ñaari des mooy xafat ak jësam jësam jës feelu jël ko xafat ismu jël ko su ko defee hmm. loolu moom euh, euh, jàngale ko mën nañ ko érab ba pare door a kii baabul érab bi am na ñeenti érab nga baabul érab bi mu am ñaari érab yu bokkut wala nga ne baabal érab bi mu am ñaari érab déedéet nga war na xam ne baabal érab bi wona babil eraɓe min yenta babul eraɓe fof dana mi ara aɗa mi bokkuto wala ngane babal eraɓe wala ngane babil eraɓe so gisete babu rek xamal na ñeenti aram yi dagan na ci babul eraɓe mu nekk haza babul eraɓe kooku lañ commencé woon ci commencement haagi harfu tanbih la ذا اسم إشارة من سكون في محل رفع مبتدأ باب خبر المبتلى مرفوع ولا مطر في أدم متأذار على آخره ولن باب الإعراب هذا محله سبب باب مبتلى لذن مرفوع ولا مطر في أدم متأذار على آخره هو مدافع الإعراب مدافع إليه مجرور ولا متجر الكسر أذار على آخره هذا تنبيه ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتلى ثاني محل خبر مبتلى ثاني مرفوع ولا مترفع دم الأزال على آخره وهو مضاف الهذا ضمير متصل من الدم في محل جر مضاف إليه والمبتدأ ثاني وخبر في معنى في خبر مبتدأ أول كن بول باب الإعراب باب من جو إعراب مبتدأ من جو إعراب خبر مو إعراب خبر نتبع هذا باب الإعراب بوك إعراب مبتدأ من باب الإعراب هذا محله من جو نصب من باب الإعراب <clears throat> manam iqra jangal ba bal irab iqra fi lam mum lar sukun wa fa'il wa lam باب مفعول به منصوب بفتح الظاهر الاخر هو مدافع على الاعراب مدافع اليه مجرور ولا مرسل الكسر الظاهر الاخر ولا اقرا جانغال في باب الاعراب في بنت الاعراب بوكو جاري واي لول وا كوفيون يي نيوكو دغال نده وا كوفيون حرف جر bàyyi fi ismu bañ jar ba mm-hmm. waaye waa basara yooyu nanguñ loolu moom kon baabil i'raab bi ci basa wa basara duñ ko nangu mm-hmm. waaye ci waa kuufa danañ nangu nga fii baabil bi mm-hmm. moo doon ci saan li nga rag iqra gi ak fii gi iqra i'raab lañ ko léegi fii harfu jar moom ñoo sukkoon baabi bi fii wala mustaqil kasra kal i'raab nekk mudaaf kon ñeenti anam yi la am bu mujj bi nga kasara ko kooku moom waa basara nanguwuñ ko waaye waa kuufa nangu nañ ko باب الإعرابي نطرب لهذا باب الإعرابي ولا باب الإعرابي هذا محله ولكن باب الإعرابي سوى نطرب اقرأ باب الإعرابي ولا باب الإعرابي سوى ما نطلب اقرأ في باب الإعرابي وآيتي وكوفة نم دقنا لن حذف حرف جر بايفو اسم مجرور به وبصرنا وينكم al i'raabu mubtadaun marfuun wa alaamatu rafihi ad-dammatu az-zaayidatu alaa aaxirihi huwa damiiru faslin alal asar comme niñ ko jàngoon ci fi passé taxyiiru xabaru mubtada marfuun wa alaamatu rafihi ad-dammatu az-zaayidatu alaa aaxirihi wa huwa mudaafun aw aaxirihi mudaafun ilayhi majruurun wa alaamatu jarrihi al-kasra az-zaayidatu alaa aaxirihi wa huwa mudaafun al-kalimi مضاف إليه مجرور ولا متجري الكسر الظاهر الآخر هو تغيير أواخر الكلمة لام حرف جر اختلاف الاسم مجرور باللام ولا متجري الكسر الظاهر الآخر الجار والمجرور متعلق بالتغيير لو تخ سبب لاختلاف الأوامر كن اختلاف له أجيش تغيير وهو مضاف على أوامر مضاف إليه مجرور ولا متجري الكسر تزايا الآخر الداخلة نعت للعوامل ونعت المجهول مجهول ولا الكسر على العاقل على عرف جر ممنوع على السكون أه. هذا من المتصل ممنوع على السكون في محل جر على أه. الجار ومجرور متعلق بالداخلة لفظا مفعول به لفعل معزوف تقديره أعني مفعول به لا فعل بلنكو حذف نطلب أعني أعني لما نمو لفظا لما أعني لما نمو سوبيك جو فهي لفظا مجملا أو تقديرا صوبة أعني فعل مدار مرفوع بضمة المقدرة عاقلي وفعل النبي موسى تقدير أنا لفظا مفعول بمرسوم بفتح ظاهر عاقلي منو إيه فين؟ إرادة أم جل ديرت لفظا حالة منصوب بفتح ظاهر عاقلي يعني أي حالة كون التغيير لفظا إيه، أم ñu حال bañ مصدر حال ليلة nekk masdar xaal léeg-léeg mu du xiyaasi kon bañ ko def xaal fii moo gën parce que lafzu bi xaal masdar am ñu ne dee lafzan mafoolu mutlax la ci taxyir taxyiru awaaxiri kalima taxyira lafzin soppeeku baat su ko defee ñu xasaf mudaaf andi mudaaf ilay ci place am taxyira lafzin ñee lafzan kon mafoolu mutlax la man suum bi fara zaira axiri parce que dafa wutu mafool dafa wutu masdar تغيير أواخر الكلمات مساز مجباري تغيير لفظ سبق لم يرتد أو تقدير لكن من حذف تغيير عندي لفظ فوه تكو تي براسم كون من دفو ووت مفعول ملا مفعول ملا خلاص أم نكو إرامي التمييز اللفظ تغيير أواخر الكلمات غيران يعني التمييز ملحوظ آه، آه، آه، لا يزن دبو بخنا أم نكو إرامي التمييز ne soppeekug lafzan la mbir mu nekk soppeekug baat am ñu erabe éraabe kana ay kana takhiru lafzan aw taqdiran kon mo erabe bëri ndar ñaareel xabaru kaana léegi kaana nekk na taqdiru nattale ga a taxyiru soppeeku ga lafzan du luñ mën aw taqdir su ba xabaru kana la mansub subu da ngaa saf kaana ga ismu bi man go erabe mu wutuma folo mu lax taxyira lafzin nga xasaf takhir andiko mu taxaw palaasam mu nek lafzan aw taqdiran taxyiru awaaxiri kalimat تغيير نادب تغيير جو مو مضاف إليه نتحول كبلاته من جو إعراب إيه مفعول به لفعل محذوف تقديره آني من جو إعراب إيه حال من جو إعراب إيه تمييز وإذا الذي جنا رفت ما ينقلب مفعول لفعل محذوف تقديره آني أو حرفه حرف تقدير المعطوف على لفظ والمعطوف على منصوب منصوب ولا متصل بألفة الظاهر الآخر واو استئناف إيه، أقسام مترو المفعول ولا مترف الدم اخره ومضاف الهادم المتصل من الدم في محل الجري مضاف إليه أربعة خبر أقسام مرفوع ولا مترف الدم الرزاق رفع بدل من أربعة بدل كل من كل لا بدل بعد من كل لا ولا بدل مفصل من المل وبدل مرفوع مرفوع ولا مترف الدم الرزاق آخره وهو عرف عرف النصب المعطوف على عرف والمعطوف على مرفوع مرفوع ولا مترفع دم الرضا إلى آخره وهو عرف عرف خفض المعطوف على عرف والمعطوف على مرفوع مرفوع ولا مترفع دم الرضا إلى آخره وهو عرف عرف الجسم المعطوف على عرف والمعطوف على مرفوع مرفوع ولا مترفع دم الرضا إلى آخره كل جسم يبدأ لنا اللي نعرف في رفع رفع رفع نقبل لك أربعة أربعة خبر لك أقسام في من ذلك الرفع جار مجرور بجيت وخبر رجل من ذلك مبتدأ أرف رفع منها من الأسماء يل من ذلك تلول لو ما وحدي وينك بون في الأسماء من ذلك تلول ها جار مجرور بتم وخبر له بجيت أرف رفع من مبتدأ مؤخر دائم كن فا فاول فسيا dafay fasaal wax di tontu jawaab buy nettale ba nga xamee xaaju era bi ne ñeenti xaaj la soo bëggee xam lan la ismu jagoo ak li feelu jagoo lil asmaa yi faagi loolu la ëmbaale faagi faawul fasiya laam gi xarfu jar wallaahu xarfu jar al asmaa yi ismu majrur bi laam wala muftir al kasra dara aqri wal jaar wal majrur متعلق بمحذوف خبر مقدم خبر مقدم أي فالأسماء فالأسماء عرف ورفا كائن أجي نكرا للأسماء ñeen كائن googu ci la أسماء أجف من عرف جاء ذا اسم إشارة ممنوع على السكون في محل جر باللام بمن لام للبعد كاف حرف الخطاب كاف جيد ذلك يوم من وجهك الرب لام جيد اسم إشارة جيد يجيكو قصري دائم عرف مبتدا مؤخر مرفوع ضرب مطرف يد متزارع الآخري وعرفت النصب توفى على عرف والمعطوف على مرفوع مرفوع ضرب مطرف يد متزارع الآخري وعرفت الخفض توفى على عرف والمعطوف على مرفوع مرفوع ضرب مطرف ودى متزارع الآخري wala su bool xafdu yooyu yëpp maa tuuf laa rafi waaw harfaat fi laa gi laa naafiya li ji la dafay dàq xeet lam dugg lépp moom dafay nasab li si mu rafaa xabar liggéey inna lay liggéey boo waxoon laa rajula fi daari mooy benn xeetu góor nekku fa laa gi loolu lay firi mu dugg rek dafay dàq xeetu loolu lépp laa rajula fi daari mooy benn xootu góor di nekk ci kër gi ولا جزم دب بن خير جزم في هذه نكتي اسم لولا يتك لاجي ناف يدل الجسم تنتب الاسم وترفع خبر تفر نصب جسم درفع خبر جزم اسم لا لا من ممن ينال الفتحة لك ولن كي بناء الفتحة بس كو دام فين كي بناء لك فين كي نصب ممن ينال الفتحة في محل نصب في حرف جر هذا من المتسلم من السكون في محل جر بفيه والجار المجرور دينا في محل رفع آه، خبر الله ولا جزم والجار المجرور متعلق بمحذوف أجيس يحذف تقديره كائن في محل رفع خبر الله جار المجرور يوليك خبر الله ولا جزم كائن داجريك فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها موك فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها موك إراب waaw nga ne istilaaf xanaa loolu nga ci wax pour sos wax laam nga arfu jar ala faal ismu majrun bi laam wala masdar kasra zaahir aqri wal jaar majrun mutaalliqun bi maxsuuf taqdiru kaayun xabarun muqaddamun min arfu jar ذا اسم إشارة من معنى السكون في محل جر بمن جار مجرور أي شيء أفعل لام كي دينا ولا بوك نك في محل جار مجرور نك في محل نصب نك حال قال ولي أفاجن تولي من ذلك من مئة جنيه كتيرو بابا مناجو كائنا من ذلك بابا ذا اسم إشارة من السكون في محل وجار مجرور متعلق بمحذوف في آه، حال آه، في محل نصب حالا للأفعال نكتب برب نصب بحالتي أفعال لام قليل بمعدي كافر في الخطاب عرفوا مبتدا مؤخر مفهوم فون ورا مترفع دم والنصب أقول جزمو نك ما توفى لا رفع واو حرف عطف لا لا نافية للجنس لا نافية للجنس نافية للجنس خفض اسم لا منصور دير المعجم ممنون على الفتحة في محل النصب في حرف جر ها دمير متسم وسكن في محل جر في وجار مجرور متعلق بمحذوف تقدير كائن خبر الله su ko defee noonu lañ koy érable buntu boobu jeex na lii rek la woon mën nañoo jàng jàll si baabu maarifatu alaamat i'raab wala ñu yem foofu ba beneen yoon al amru ilaykum إن أريد الإسلام واستطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته